jege na juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay liste terewul bokk nañ ci élection yooyee am ca ak ndam ndax seen ndam lii yéene bi ne ma ëpp na ba Macky Sall njëkkoon bokk 2009 ak parteem waaye jafe-jafe yi neen la ñuy dund ñoom waa coalition gëm sa bopp Bamba faal ma nga xam ni wóolu woon nañ ko jël na seenu mandat ak seeni conseil jébbal président Macky Sall Daawur Ñaa Njaay ma nga xam ne jiitaloon nañ ko ca Pikine jël seeni conseiller kompaloo ak ñoom jébbal timboo yéene kaay bi ne ma loxol Macky Sall jógu ca de ne ma Bougane day exploit bi mu am ci élection locale yi tax na nag dëgg-dëgg dugg na ci réalité politique ña ngi koy galgal ak di ko njàmbaas las yéene kaay ne ma moom bugaan day xamle na ni résistance rek taxaw fipp ci fitna yi nga xam ne Macky Sall mi ko koy teg ngir bëgg a sayal mouvement bi naxasaayal ko tribune ne ma en tout cas transhumance bi Bamba Fall day njëkkeewu ko te yaakaaruma mu mujjee ko Idrissa Seck gisoon nañ ko fi Modou Diagne Fada ak Balde Moussa Si bu parcelle ak ñeneen ñoo xam ne ci liste transhumance yi lañ bokk l'observateur ne ma gi nga xam ne teg na ci lool waaye tam koo xam ne buy politique seetu ci lenn na am la mu bëgg rek yéeni kaayu futur média bi ne ma amagu ca ndam de transhumance bi wala bu ko ci amit bareegul expérience yi mu am ci Idrissa Seck am ko ci Banda Diop am ko ci Moussa Sy te neexul lool ndax daf leen xëcc andi ci ñoom terewul askan wane ko ña nga xëcc andi ci yow taxul ñu woteel la mel ni sax ku sanctionné président Macky Sall foofee ñooñee nga xam ne ay transhumant lañ dañoo mujj ñàkk seenu gox ñenn ñi nag bii mooy gulet ñuy ñooñu nag yore cëggal guy ci lépp luy xew ci réew mi lii nag daf koo def aku yittee moo taxit ma ngay saax-saaxee moominu askan wi ngir yokk doole 24 heures ne ma président doolli cere yokku ñeex daanaka mooy yitteem ndax Bamba Fall keroog ba ñu ko laajee dafa xam le ni dama waatal président Macky Sall ne ko soo ma jàppalee ngir ma suqali Médina dinaa def lépp loo xam ne bëgg nga ko ci man yéeni kaay bi dama kon kay président Macky Sall dafa jël sunu moomeel di ci waxaale ak gaay yi di suñu alal naa leen defal lii ngeen ñëw ci man waaye tam ñi nga xam ne ñoo yor maire yi des na andik laaj ci ñoom jël mairie yooyu yee di ko waxaale ñoom it sàkku ko nag ba am ko def ko arme goo xam ne dañ ciy tiital président Macky sallak di ko xoqatal ngir mu jébbal leen ay neexal direct news ne mairie yëpp day bendu ci mairie bu Touba gaa yi jëfee nañu ndigal Abdou Lahad Ka moo fa toogaat jaroon nay élection am déet loole la direct news samp ni ki laaj ni ki tey su aané ma foofee ca Géejawaay conseil municipal bi day daañu ko fa taxawal tey waaye nag xeexoo bu miti moom moo am yeewi askan wi am nañ ci fanweer ak juróom-ñeent ciy conseiller fanweer ak juróom ñaar waa nitu benn bokk yaakaar yi am ko Ahmed Aïdara ki gaayam bi nga xam ne moo jiite mairie ba ña ngay def seen kéemtalaay kattan ngir yokk seeni i conseiller mën na am ami dogal ca boobule mairie waaye Benno Bokk Yaakaar ña nga yor seen i malet de kuy ëppale conseiller tey daañu ko xam te géejawaay critique yéene kaay ne ma tey ji it soo am wàdd ni ak Barthélemy Dias daanu weccoo ay lenge waaye weccoo goo xam ne du neex ci xol rawatina gu soo am bi nga xam ne dafa jàpp ne dañu koo war ci biir taxaw Sénégal le mandaane boobu day Macky Sall bopp baa ngay rëj rëji président mi ngi ci guddi gu bër setagul ndax jafe yu bari ci réew mi rek ASP ña ngay ñaxtu critique yéene kaay ne ma fanweer ci ASP day yóbbu nañ leen ci kanamu procureur foofee ci diwaanu Kolda le mandat ne ma gannaaw ASP yi jàngalekat yi ñu ngi ci grève goo xam ne jeexagul ànd sàmm jikko yi nag war a amal ab doxub ñaxtu ngir aaye fi ngóor jigéen ci réew mi tribune ne ma ci wérgu yaram waa ànd gësëm ñoom it daal dinañuy déposé après avis soo moytuwul daañu amal grève te du yàgg dara réew mi ko dajee ne Macky Sall day yitteem jamono ji moom moo nag falu premier ministre waaye am na galgal gu nekk ca biir Sud Quotidien ne ma Macky Sall bëgg naa fal ab premier ministre jànkonteel mooy kan la koy fal waaye tam équipe ba muy àndal ndax Macky Sall nag jamono jii am nay enjeu yoo xam ni ma ngi koy xaar ci wàllu jafe-jafey askan wi waaye tam ci wàllu xëy meeg yeneen te Macky Sall neexul ba neexul suy fal bëgg na askan wi suqaleeku waaye tam ci wàllu électeur bëgg na ci côté mu yokku ci it ku koy wuutu foofe it ma ngi cay xalaat lool moom président Macky Sall en tout cas Dakar Times mi ngi may xamal ne daal dinay gàtt jàngalekat yi moom président Macky Sall neexal na leen ba maar day taxali ngir ñu bàyyi grève bi Le Soleil yéen kaay waxtu woowu day suñuy doom la ca ëpp ña nga ca l'école privée ya nag mooy saafara jafe-jafe yi nga xam ne njàng meeg njàngale mi mi ngi koy dund ci réew mi wala it ay naxee mbaay la ñoom l'école privée yooyee le soleil yéene kaay tey dafa xëy samp ci laaj le quotidien le quotidien ne ñoom jàngalekat yi day seen biir sax ñoo jubootul faf G5 G2 ak G7 ku nekk dem na sa boor ngir ñaxtul sa bopp le quotidien le quotidien ba tey ne ma Balla Moussa Daffé day ma ngay artu Salif Sadio xamle na ni du moom moo war a wax ci turu Casamance libération ne ma ñaar ci coow ngii de fay ko du yomb muy xale ba nga xam ne du dégg te mënta wax amoon fukkeet ak juróom benn ñëw wee la ko bésu finaalu coupe d'Afrique ba te jubilé ba la ko juróom-ñett ci xale yu góor jàpp yóbbu ci ginnaaw almeer ak batimang wuyee la ko ba bëccëg gi lañ ko daal di sànni ko deretam ñan ca jàppoon juróom-ñaar dañ leen bàyyi ndax ne ñu amuñu ay preuve nañoo violé xale bi libération ne ma Basiru Càmm mi ngi ci guddi gu bër setagul ndax takk der dañoo njort ne moom moo rey ndongo géy mii ñu fekkoon ci wotoom ca Cambérène autopsie bi nag xam ne ni ndongo dañu koo jamate laataa ñu koo fat mu jaare fa ñàkk bakkanam la dugal Basiru nag moom moo di téléphone am ban ko xoolee fanu sànni téléphone ndongo géy ca Mali borne na fa ca Cambérène fa néew ndongo gay feeñee ca wotoom it borne na fa te moom ba ko enquêteurs yi laajee dafa ni waxtu woow ma nga doon nelaw l'observateur ne bu leen fàtte nit coronavirus bii gis na ni mi ngi wàññeeku bu baax ci réew mi juróom ciy diiwaan dong la nekk saa si tembe ñu yokk matukaay yi ndax mu abal yi yéen leen a comme tey monsieur le maire bu Guédiawaye. kaddu rek ci paralysie du secteur de la santé. monsieur le maire bu Guédiawaye El Hadj Ahmed Aidara dañu koy installé. probablement incha allah xam naa nag ci kanam tuuti dinañ def suñu délégation dem fa de ah.

yaakaar naa ne nguur daf cee war a war a war a war a xar tànk tubéyam def ci lu mu mën ngir taxawu ñu secteur bi ñoo ñooñee si ne mm-hmm. gis nga euh, karanaam naam nafa boo amul wér-gu-yaram doo dem liggéeyi boo amul wér-gu-yaram doo productif doo amal benn njariñ sa réew donc ñoo ñu di nga xam ne ñooy tax nga am wér-gu-yaram euh, yaakaar naa ne ñooñu da ngay war a mën a taxaw da ngay dem ci ay villages yi gën a réculer fii ci Sénégal waxuma la sax poste de santé de mais pour ñu évacuer la boo xefee ci ay charrette la ñu lay teg nga nekk jigéenu wérul mm-hmm. ay charrette la ñu lay teg nga nekk jigéen wérul ñu war la yóbbu wala ci ay jakarta wala ci moto yu nga xam ne nii yaakaar naa ne boo doxee sax mooy gën a gaaw mm. ci lañ lay yóbbu nga dem foofu nga xam ne moom mooy poste de santé bi entre guillemets mais décor ba rek yow bu ñu la jëloon yóbbu la fa doo fa mën a toog doo fa gis sax am na yoo xam ne lal bu ñu lay tëral sax du fa am dangay jël sa sa sa sa sa mère gàddu teg ci suuf ndax lan amul jumtukaay ba ca donc yaakaar naa ne ñooñu tey jii bu ñu demee ba taxaw ne ñu ngay yëngal di laaj ñu xoolaat seen système de rémunération c'est parce que ñoom ci boppam yittewoo nañu ko. éducation ñëpp xam nañ ne yow mi nga xam ne yaay jàngale booy dem di jàngale te yow sa kër nga bàyyi fay problème yu ne yu yu ne gàdd la ngay jàngale doo ci xam dara. information ya nga war a jox say doom wala ña nga xam ne ñoo nekk sa classe ba doo ci xam dara te yaakaar naa ne nag am réew bu fa kenn jàngul waxuma rek ne jàng na saraan mais jàng ba mu ci manti doon yaakaar naa ne boobaa dana doy waar torop donc jàngalekat yi ñi nga xam ne mooy suñu larme bi euh, yor sunu wàllum sécurité kaarange gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum santé bi état lu mu ci mën naka ci def ndax nag gis nañu ne Sénégal bu ñu nee ñàkk na koppar dina ma jaaxal trop ndax nag lu jigee cent soixante dix mille wala lu cent soixante dix millions wala lu ko la ñu war a génne ngir inauguré ab euh, sunu stade bu baax bi sunu stade bu bees bi nga xam ne moo nekk jam ñaajo macha allah waaw stade boobu na wax fa dëgg neex yàlla

donc nañu ko xoolaat bu baax nguur gi faw mu bàyyi xel bu baax si jàmbat yooyu euh, may nuyu bu baax sama mbokki mool yi nga xam ne ñoo nekk si géej gi euh, Père Mbaye Ngone maa ngi nuyu dégg naa démb man la doon <laughs> man la amee woon ci <laughs> lan nga def Mame Mbaye Père Mbaye Ngone ni ay ni dañ may oo di ma wax quoi laalaay sopaal maa ngi lay nuyu borom kofem sama jigéen bu baax bi mu ne ah Mame Mbaye nee na euh, Bougane li coût yi muy encaissé nii day tax mu am benn maturité bu mu wax loolu waay loolu waru ko wax père <laughs> Mengone waaw père tamit yow loolu sa xalaat la te matinal bi du ko tardé de ñun rek lay seetaan non réew mi dañu bëgg matinal bi père maa ngi lay nuyu bu baax man man gis-gis yaa tax ma koy seetaan père Mbaye Ngoné ma bu baax xalaatam loo am na ci droit <laughs> donc man it am naa droit wax sama xalaat bu ñu ko daggal du ko def fan yi moom la ñuy partagé benn extrait bu ñu ko daggal maa du si gaynde yi si Bougane. ak kaa bi ni mu demee nii. ni mu demee nii <laughs> non après bu ñuy tëj xale waral leen ma extrait boobu bu ñuy tëj ñu dugal ko. non père am nga droit nag jël sa position mais nag bu ma attaqué yow sama xarit nga sama papa nga donc yow sama xarit nga yow moom moom sama diggante ma yow amul wax a tontu. on est ensemble. ay mbokk ay sa mbokku lébu la. sama mbokkum lébu la. <laughs> xam sa pap bu baax na. déedéet kay. si barkaala. ndeysaan. ayca <laughs> yéen a kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee yéen a kaay groupe des médias di la tribune dafa ñëw ci euh, Bougane Gueye Dany dafa mel ni kon jamono ji nguur gi daf koo teg gët te ki la teg gët nag dafa mel ni da da da laa ragal. ndax fu mu nekk am fekkee tamit jàkkaarloog yaasin lu mu def ma di ko xool wala may jéem am lu may lijjanti ci kaw dafa mel ni kon dama koo ragal yéen kaay bi ne ragal wala mu impressionné mu impressionné la wala mu am am am foo ko teg foo xam ne nii euh, sori na daal kon nag yéen a kaay groupe des médias foofu la génne mu ne ndax Bougane Gueye Dany président Macky Sall daf ko tàmbalee ragal loolu laaj bi la ndax nag gis nañu ay fee yu bari

ayja moom yaa ngi le député du peuple. waaw <laughs> le du peuple de gars yi ne il faut mu dem assemblée nationale. oui yow kay waay. munoo dugg il faut xaw ma nag ban liste ngay dugg comme da léegi dugg si liste wóorul. xaw ma ban liste ngay dugg mais xoolaatal booy dugg ci liste pour dem assemblée nationale. <laughs> boppam lay demee. xam ak gëm sa bopp moom dem gars yi ne yii kii wóolatuñu ko. <laughs> boo demee gëm sa bopp. non non mais gëm sa bopp. ku boo lay foora dugg dafay dugg ah. non non non non non non pour gars yi ñoo dul wóolu quoi. waaw donc boobu ñoo ah, dul wóolu bu fekkee aw bu ne nag kon nag Bougane Gueye daf mel ni kon Macky Sall ko tàmbalee ragal ndax gis nañ législative euh, locales ñëpp xam nañ avant avant élection locale mhm. euh, sa bopp ñii ko ñëw fekk si amul fenn amul fenn ñu nga xam ne nii. Euh, am nga lim bu toll noonu ñi nga xam ne ñoo ñëw rallier ci moom bari na lool parce que dañ daan def chaque jour nga gis ay délégation yu bari bawoo fu ne ñëw dugg ci biir gëm sa bopp fësal seen bopp wan na ne ànd na ñox ñoom euh, kon nag gëm sa bopp doole jooju mu am fu Macky Sall dem mu topp ci ginnaaw di tibb ay tànkam mooy tibbi tànk wàcc dox Sénégal gi yëpp looloo tax ñu ne kon président Macky Sall mii dafa tàmbalee ragal ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany yéen a kaay groupe des a kaay euh, seetlu ci wàllum transhumance fii ci réewum Sénégal askan wi nañ dundee nee nañu Sénégal nag dafa mel ni championnat bronze championnat ñu ñoo jël ndam li hmm. ci wàllum transhumance ànd gësëm les gësëmeurs jëm ci jamono ji ñi nga xam ne gësëm nañu nguuru ko président Macky Sall ñoom nag jamono ji lu ñuy sàkku mooy rek la nga xam ne jàngalekat yi moom la ñuy sàkku jëm ci wàllum système de rémunération seul seul la voix du xalif euh, fait autorité foofee nga xam ne moo di sa diwaanu Touba Fabrice Nguema sànq laaj na ko ndax jarati na ñuy organiser ay élection foofee sa diwaanu Touba ndax nag élection yi passé gis nañu ben liste mo fa ñu tek ko mais également ben bulletin blanc bu ñu tek euh, té gis nañu bulletin blanc bi mom mo gagné li nga xamné mom moy liste ba en tout cas lu mu ci manti doon yéenekaay bi def na ci ak taxaw euh, setlu ndax nee fofu ben cadre mo moo fa jëfé té jëfé nañu ko nak ñom jot nañu installer sen maire ba paré pare khat Ka mom moy maire bu diwanu Touba moom yéenekaay bi ñëw na ci li quotidien ñëw ci attente ñi touré mi président Macky Sall mom mi nga xamné mom lañu tek ci bop Union africaine donc nak

da jot nañu leen déféré sa euh, euh, procureur moom moo def euh, lu ni mel kon nag dañuy jàkkaarloog procureur maire bu Kolda maam booy Diao nee na nag changement la woote installé nañu ko ba noppi maire bu Kolda Mame booy jaawo installé nañu ko ba noppi moom nag nee na fu mu nekk ni liggéeyam du leen a dul soppi diwaanu euh, Kolda Soham El. moom na entamé médiation ci ASP Ndiap Kolda. certainement dina def médiation bi comme Kolda 30 ay 30 euh, euh, jot nañ la ñu defaree. mais xanaa ASP boo ci nekkee sa amoo sañ-sañu xëy bàyyi de xanaa. Ah, am nga suñ am nga sañ sañu bàyyi ñu bëri ñoo xam ne mhm. bàyyi nañu. ñu bëri bàyyi nañu. ASP ba ñuy tàmbali. 7000 mhm. nañu yokk ko 10 000 mais léegi la ca nekk sax muy muy ay 6 000 personnes ñoom ñoo ci nekk. am na am nga motivation bépp liggéey ay ca critique yéen kaay dafa ñëw ci Soham Wardini Barthélémy Dias xam nga ne joxante lenge gi wala sax installation Barthélémy Dias tey la ni comme bosu Alhaji Ahmed dara kon nag tey mairie ville bu euh, Dakar tamit euh, Barthélémy Dias tey la ñu ko fay sanc maire bu Ziguinchor Ousmane Sonko teg na ci table ji juróom benn ci ay dossiers yu nga xam ne ni moom tàmbali na liggéey ba moom Ousmane Sonko foo fee sa diwaanu Ziguinchor mi ngi ci liggéey bi déjà convoqué na conseil ba teg na ci table juróom benn ci ay dossiers ñu war a waxtaane ànd ak Euh, sur le pied de guerre kon nag ñoom takk nañu taxaw fas yéene jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy nguur Macky Sall ndax ñoom it euh, gis nañu kon seen euh, la ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe bari na kon gàllawaay nañu si taxaw nañu si taxaw loole la ñu la la ñu bëgg ñoom waa ànd gësëm ñu jàll ci l'exclusif l'exclusif euh, dafa ñëw ci ñu bëri li doon laaj démb euh, Badara Sembène tey bu diaspora mi ma koy laaj nee na yeewi leen askan wi ndax euh, Alioune bu gëm sa bopp. ma ngay waxaal ANCP ngay waxaal mi ngi wala mi ngi Benno Bokk Yaakaar wala mu ngay waxaale. comme nag tungu ne du teew du nataal jàppal ne kon Alioune Mar ci boppam tontu na la si l'exclusif. moom Alioune Mar. maire bu commune bu Rufisque Ouest nga xam ne dañu ko tabb quatrième mandat ba noppi mu dem ci liste coalition gëm sa bopp. wax na ko. Euh, nee na nag fu mu nekk nii ñoom ci wàllu politique kenn moom mu leen kenn tënku leen. moom Alioune Mar kenn du ko jàngal ah politique. nee na bu dee tënk politique rek moom xalif la ci sa tëngeej kon nag du ci taalibe <laughs> ba seek mu ne amul benn échange wala négociation yu nga xam ne yu sincère yu nga xam ne jot jot nañu ko def. ba am lu ñu lu ñu dëggal. <laughs> mi ngi ñëw mi ngi ñëw par benn déglu ko rek mi ngi ñëw nee na waxtaan nañu weddi ko ak waa bennoo waxtaan nañu.

Non, précision précision précision commune ouest parce que moi, gagné ouest mais ville bi il y a eu askan qui a gagné mais opposition li nga xam ne hmm. sa askan a eu parti du coup quel que soit alpha tractation de am maanaam il y a eu askan day def le tout pour am ñu mu waxtaanal pour euh, am ay propositions yu mu def mhm. mais ñomit euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition dañuy def ñoom it seen transaction Benno Bokk Yaakaar dañ leen gagné ñomit ci ville bi ñomit ñu xool ñoom nan lañuy créer tamit ah, ñi lañ waxtaan ak ñene joxante la parce que pour formation bureau municipal bi la dañ naan kay ñu waxtan ma jox la ay adjoint dañ naan kay ñu waxtan bo bëggee man na la joxe adjoint alors réaction bi ah, ah, amna élément bu jàll sank ñom sen réaction en français ñom nee nañu ñoom nee nañu <laughs> Mhm. waxtaan ba jubboo jot na am ak ñoom seen diggante ak Yewwi Askan Wi. loolu kenn bañ ko mën na nekk quoi. si ko yow fi fi nga bëgg ma ñëw fi naa fi xam naa ne moom phrase bu mujj la bëgg bu ñëw fa quoi <laughs> donc ba dara sembeen ñoom yeewi nañ la si bu dee conseil municipal bi bu ville bu tëngee jot mm. nañu waxtaan ak waa yeewi askan wi xam naa déggoon nañ ci ay ay ay ay kàddu ñoom ñoom waa waa waa coalition euh, euh, euh, ANCP gëm sa bopp bu nga xam ne Alioune Mar mu ne nag digganteem ak euh, Bougane Gueye seen ànd bi ci respect la ko teg. ànd nawle waaw ci dëgg la ko teg. Mhm. nee na nag daje nañu ñetti yoon sa ci moom Alioune Mar mooy wax ba tey. Mhm. ci campagne bi ah jot na fa euh, euh, voilà ci campagne bi ñoo àndoon. Mhm. waaye masuñu toog waxtaan ci wàllum koppar masuñ toog waxtaan ci wàllum matériel.

Alioune Mar moo wax bu fekkee mën nga bëgg a jël kàddu bi wax tekk sama kaw Alioune Mar mooy wax le maire bu commune bu Rufisque Ouest nekk bennoo bokk nekk nekk euh, euh, <laughs> gëm nay leer leer maanaam man du samay wax maa ngi nii maa ngi seen TV fi laay liggéeyee waaye kat jënduma fi bàmmeel mais ku ne xam na ko mais du ma bu ma nee ah wax dëgg yàlla fi nekk moom dem laa bëgg su ma bëgg su ma El Hadj Ndiaye woowee ma dem bu ma Cheikh Niass woowee ma dem bu mu waa waa waa TFM wooye ma dem. sa waay loolu mooy mooy respecté wu ma nekk. loolu mooy waxul dem laa bëgg dane mooy man sérieux wu ma. dane waxul dem laa bëgg dane ubbi naa ku ku ma woo ci waxtaan politique. loolu mooy waxtaan ci wàllu politique. waxul ne ku ma woo ma dem. xayaan nañ dem xayaan bu dégg séeréer monsieur le maire Alioune Mar dégg nga li nga xam ne moom la El Hadj Mouhamadou Mansour wax la député du. déedéet man waa Tëngéej waa sax sama mbojj ma xamal la nag waa Tëngéej dañ laa sopp. Ah, a bëgg dañ laa bëgg de. wóor na la dégg nga li nga xam ne moom la wax. donc euh, tontu nga ñoom moom li ñu doon si ci tontoom moom tontu na Alioune Mar voilà maire bu Rufisque Ouest évidence dafa ñew ba tey ci Bougane Gueye Dany fum mu nekk jàkkaarloo ndax réalité politique mhm. euh, maanaam lu ñuy dund deug deug deug ci walu politique fi ci réewum Sénégal mom mu ngi koy dund mom Bougane Gueye euh, euh, dani autorité yi l'autre échec moom mooy sunu njiitu réew mi président Macky Sall ak nak agence bi ñu woowee kon ASP yi gars yi jafe-jafe yi nga xamné mom moom la dund jamono ji ba tax ñomit ñu wacc fëskee né wane sen bop am ñi nga xamné jot nañ leen si loxo walum débauchage ci opposition bi Macky nag jamono ji dafa mel dafa takk dàllam wutali législative yi fu mu nekk nii nee nañu législative yi moo tax muy jële fu nekk ku nekk rek mu ngi lay jéem waxtaan négocier ngir dugal la peut-être ci ab listam wala nag ngir yokk dooleen jëm ci législative yi hmm. ndax nag représentativité la bëgg euh, ca pencum ndawi réew ma wala majorité en tout cas lu mu ci man ci doon politique euh, ci wàllu euh, Sénégal gis nañu kon nag situation bi nu mu demee ñu dem ci Sud Quotidien euh, profil premier ministre bi ak équipe bi mu war a liggéeyandool jamono ji nag présent Macky Sall ci loolu la ne ani kan moo mën a nekk premier ministre jamono ji ñu toll nii ani kan la ñu njoxt ni moo war a doon premier ministre. maam xam nga maam. ani kan am na nit ñi. bëlëf bi ñu nekk ci nit ñi. jamono <coughs> yi jamono yi Ablaye Wade dañu doon wax naan kan moo mën a remplacer Ablaye Wade. Mm-hmm. gis nga fii 17 millions Sénégalais. kenn ku nekk mën a doxal lu ñu la dénk. Mm-hmm. réew mi xoolal. ñëpp ko mën a doxal président Macky Sall lan la ingénieur ñaata ingénieur la nekk Sénégal bun Abdoulaye Dione lan la woon li mu doon ñi ko mën a ñi ko mën nekk Sénégal fii bépp DG wala ministre boo fi gis mun naa nekk peem cest à ku koy doon ak est que dina ko antan ñëpp ko antan amal patriotisme ak bëgg réew mi xam nga lu ñu bëgg mm-hmm. mu indi PM réew mi dox président Macky Sall. ndax yàlla ak le député du peuple nee na ñu mën koo respecté. mën ko respecté quand même le député du peuple nee na. dëkk bee sooxe. li ñu soxla mooy nga andi premier ministre. soxla ñu nga calculer ndax dina baax ci euh, résultat bi prix yi nekk ci marché bi amul contrôle. Mhm. wallahi booy dem ci marché bi nga xam ne yëf yi amul contrôle. ceeb bi dafa yokk ceeb bi diw gi yokk suukar bi yokk saabu yokk. Mhm. maam lépp a yokk.

bii di ñëw grève lay doon fii ci réewum Sénégal banque seen yoxo ci wàllu ko wér-gu-yaram ba noppi it marché national ñu ngi koy waajal ñoom euh, gësameur yi euh, kon nag euh, jot nañu ko waxtaanee mu mel ni accident bi nga xam ne moo amoon si yoonu Poroxaan bi juróom-ñeenti ñoo si ñàkk seen ak bakken am ñëpp ñaar fukk ñu sa jëlee ay gaañu gaañu jàppale ne kon 15 millions de francs la ñu jox ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi jox nañ leen ko jox ayca kon nag Yacine dafa mel ni yegg nañu si dëj dëpp gi de jot naa